étoile jamono ñoo ngi leen di nuyu di leen di ziar dellu si waat ci kër champion kër champion nag saa su nekk bu ñu ko waxee ñu ci dalal ay ndaanaan tey ñu ci am Diap Senghor Diap nekk koo xam ne kenn doot ko présenté ci commune bu Joal Fadiouth Diap Senghor Diap production waaye bokk ci Euh, CNG de lutte bu Joal Fadiouth Moussa Diap ñoo ngi lay nuyu di la ziar. waa jili fay nañ la bu baax a baax. Mhm. Euh, di la nuyu bu baax yaag mhm. sa caméraman Ndiaga. Mhm. ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar di nuyu Joal Fadiouth yëpp. di nuyu Sénégal yëpp. Euh, bàyyi wuñu kenn daal nuyu nañ ñëpp. comme niñ koy waxee rek étoile jamono pour gars yi yokk abonné yi rek. waaw d' accord Diab yow nga bokk ci CNG de lutte bu Joal tey nag dama lay bàyyi nga jàkkaarloog caméra bi bu baax a baax a baax euh, war a waxtaanee li nga xam ni moo di làmb Joal amoon na journée bu yaatu bu fi amoon fan yi ñuy ci félicité euh, promoteur bi ak waa jàppoo production mais ñu gis làmb ji am ay yàqu-yàqu ñu bëri jiñ ko CNG de lutte bu Joal jàpp euh, yaa ngi en direct étoile jamono lan nga mun a leeral ci loolu. waaw jili euh, question boobu def may neex trop pour ma ma tontu si euh, comme ni nga ko waxee euh, lamb ji passé mu nekkoon lamb 17 18 euh février bi nga xamné ne waa jàppoo production ñoko ko won euh ki nekk ci bob bi di Ousmane Diallo. Ousmane Diallo ma koy nuyu de de passage muy suma grand di suma lepp vraiment nit ku bax. Euh li ma si mun a tontu nag mooy comme niñ ko waxee léegi nga ne ñëpp jàpp nañ ne euh, CNG bu Joal Fadiouth ñoom ñoo yàq làmb ji ñoo deful seen liggéey. ñoo deful seen liggéey. Mm-hmm. waa xëy na ñooñu peut-être dañoo seetaanu làmb bi bu baax ndax làmb ji bépp matuwaay boo xam ne tey commité de lutte bi wax na ko jël. Mm-hmm. def nañ lépp lépp li ñu mën def nañ ko. Mm-hmm. dem nañ sax ba moment boo xam ne ñun dañuy forcer pour pour pour sauver làmb ji. ndax làmb ji ñëpp gis nañ li ko yàq. kon jili bu nit ñiy wax ne euh, CNG ñoo yàq làmb bi mm. peut-être dama foog ne ñooñu dañoo bëgg a wax di wax rek mm. mais foog naa làmb ji ñi seetaan si woon yëpp gis nañu lan moo yàq làmb ji mm. li ko yàq yomb na benn xale euh, ñu koy wax euh, ñu koy wooye naka xamasiga moom moom la ordinateur daan jële bi ñëpp gis nañ ko ñëpp gis nañ jël bi mu leer nañ mu ngeeg vidéo si lépp. Mhm. Euh, bi ko ordinateur daanee dafa jóg pousse ordinateur ñëpp gis nañ ko. mu jóge foofu ñëw football saaku yi yëpp gis nañ ko mu ñëwaat si table technique bi këpp saak bi nga xam ne moo defoon xaalis bi. saaku xaalis bi xaalisu miis bi. saak bi la këf boobu saak bi xaalisu miis bi moo si nekk ak xaalisu Habib yaay ak licence ak ay licence mhm. mu ñëw këf saak bi mhm. génn ak moom géew gi kooku ñëpp teg nañ si bët ba ñoom buuba assurance ñoo ko dabi si biti nangu saag mi indil ñu saag bi saag bi biñ ko indee ñun ñoom buuba saa dañ leen taxaw leen ñu compter xaalis bi ba xam ndax manqué wul tey bu fekkoon dañoo taxaw pour yàq mbala dañ taxaw pour leen bu excès dañ koy ne xaalis bi manqué na mhm. ndax saag du tool noonu def xaalis du tool noonu nga daw nga jël ko daw ak moom si biti boo dellu see luñ la wax ne manqué na doo ko wét dëgg la mais ñun loolu comme taxuñu jóg dañuy jëlaat xaalis bi na leen taxaw leen ñu xool ñu conté xaalis bi Malick fay tey bi nga xam ne mooy suñu euh, secrétaire. Mm-hmm. Euh, nekk président en même temps président maam ngeen commune. Mm-hmm. moom Ismaïla bi nga xam ne moo chargé de la communication ñoom ñëpp ñu taxaw ñu conté waat xaalis bi ba mu nekk noonu ñu bàyyi. njëkkee booy ba mu ngi si biti fekk fa ay borom kafe jël kafe bi tuur ko si biir si kaw nit ñi. jël furno bi xal ya fa ne woon mu sotti ko si kaw nit ñi jël furno bi ñëwaat si si table technique. ci biir làmb ji. ñëwaat si biir làmb ji. moment boobu jël na furno bi dóor ko si kaw table bi ba pare daw utali bant bi nga xam ne tey moo saytu courant bi nga xam ne moo nekk si digg bi. Mhm. bi mu mbëkkee bant bi yee na nga fa woon ñeneen a nga fa woon ñeneen ak ñeneen ñëpp gis action yi mhm. Mhm. même policier bu fa newoon ak gendarmerie mhm. réaction bu gaaw bi mu def kenn mu fexe ba du ko def ma jox la benn exemple euh, kii nu mu tuddati euh, comme Modou Lo Modou Lo Ama ji gis nga fa mu jóge waaw te pourtant foofu gis nga dafa nekk si policier kenn xamul nu mu toll gis nga fa waa ji jóge ba egsi si combat bi hmm. policiers yi soog a def réaction hmm. pour woon la ne loolu yàgg na si làmb nit mun na bet def dara balaa sécurité bi di rendre compte hmm. fekk nit ki def na li muy def accident foofu kenn mënu si dara làmb ji keroog même bu fekkoon san policier ñu nga fa réaction bu gaaw bi waa ji def pour mbëkk bant bi kooku policier gendarme mënu si dara kooku moom c'est automatique lii moo yàq làmb ji bi mu mbëkkee bant bi courant bi dafa mais ñi ne woon si ginnaaw ndey faatu am na si mooy ñooñu ñëwoon xaw ma ay supporter am lañ tey soloon kii. waaw waaw te doon fecc fecc yi am na si koo xam ne euh, kii bi bi mu daanoo projecteur. Hmm. da da da ko gaañ. Hmm. na vidéo yaa ngi fi. Hmm. bi mu affaire bi mu defee ay étincelle woykat yi dañoo daw tasaa génne lamb ji. tëggkat yi daw génne lamb ji. waa foofu lamb mu na fa am. caméraman yi daw bàyyi direct. caméraman yi daw. léegi foofu kan moo def faute CNG. CNG def na li mu war a def. Mhm. li mu war a def mooy waxante ak promoteur bi ñu jëfalante li ñu war a jëfalante. Mhm. promoteur yi pour ti sécurité promoteur indi la sécurité. Mhm. sécurité mu nga fa. Mhm. peut-être gendarme nekku fa. Mhm. te promoteur bi ñun ñëpp dégg nañ vidéo yi li tax gendarme ne gendarme yi newuñ fa. kooku beneen affaire la. Mhm. ndax comme ni ko waxee ñun mu ñu jox suñu bopp ay gendarme xam nga lu ñu mën. bu làmb amee ñu def demande de et de sécurité. fa lañ mun a ñun du ñu joxe ordre duñ def dara. le commandant nag moo ñu mun a dimbale. tey bu ñu defee demande de de sécurité mu taxawal ñu te xam ne làmb du def dafa nekk loo xam ne warul di am sans sécurité. malgré sécurité nga fa woon. ndax comme ni ko promoteur bi waxee. du du fere ay millions yam. du fere ay millions yam ba mu des trois wala quatre jours. li mu li promoteur bi waxee ñun ñëpp tegg nañ donc mu benn affaire bu ndaw bu ko yàq muy sécurité kon moom dina uti yeneen pexe uti beneen sécurité bu ko ñëw sécuriser lamb ji ndax du fere ay millions bàyyi ko mu naax saay noonu. d' accord mais ñu bëri dañ leen di rapproché ni yéen CNG bi arbitre yi ngeen indi keroog ca lamb ja newuñu ay arbitre professionnel bu ñuy seetaan ngañ seen. ak ki mu doon bëreel maa ngi fàtte tur bi mu nekkoon bëri boo xam ne xaw ma ngay seen njaag seen combat boo xam ne presque combat maare la woon dañ ko bëri bëri bëri bëri ba ngañ seen gerte loolu tamit est-ce que nekkul erreur arbitrage loolu loolu lan moo ci seen responsabilité ji li am na fu arbitre bi juume mais njuumte yàgg na si arbitre. Hmm. exemple bi ma lay jox mooy coupe d'Afrique bi paase. Euh, euh, coupe d'Afrique bi paase. Hmm. coupe d'Afrique bi paase. Hmm. ñëpp nañu erreur arbitrage. ñëpp gis nañ ko. Mhm. lu ñu si man Sénégal dafa mujjee dem toog. Mhm. te pourtant Sénégal ñëpp xam nañ ne arbitre bi tegu ko si yoon. du loolu kese de exemple boobu kese laa lay jox. Mhm. ak yeneen ak yeneen ba arbitre professionnel yi sax dañuy def ay erreur. arbitre bi keroog dëgg la def na erreur mais li yàq làmb ji principal problème bi yàq làmb ji. mooy lii ma la indil booy bi nga xam ne tey moo indi moo indi violence. ba yàq làmb ji. Euh, dëgg la arbitre yi. arbitre yi. arbitre yi dañoo dem defi formation. ba am seen diplôme. arbitre yi doon arbitre keroog. arbitre yi doon arbitre keroog. Hmm. dañoo defi formation ndax foofu sax xam nga tey waa waa Joal ak ñi ko wër dañuy war a jaajëfal xam nga tax ñu war ñu jaajëfal. Hmm. jili ñaata at fii amul arbitre. Joal kenn xamu ko. Hmm. ñaata at Joal amul arbitre. ñun ñu ñefe loolu ba fexe ba Joal am ay arbitre ñu fayal leen ñoom ñu defi formation ñu defal leen formation ay professionnel defal leen formation ñu am seen diplôme ñëw di arbitre. ñan ñoo def loolu. ñan ñoo leen fay ñun. ñi ñun comité de lutte. comité de lutte bu Joal Fadiouth. Mm-hmm. ñun ñoo leen fayal ñoo génn suñu xaalis fayal leen pour ñu def formation. Mm-hmm. ndax dëkk bi dafa raflé woon lool. baal ma nga wàcc micro bi tuuti. Mm-hmm. voilà waaw dëkk bi dafa raflé woon lool. ndax dëkk bi amatul woon ay arbitre. léegi ñun fexe nañ bay Joal ak Fadiouth am nañ ay arbitre yu fi nekk. yéen comité de lutte bu Joal yéen a def lool. ñun ñoo def lool. waaw si biir loolu tamit arbitre day juum. gis nga ni ñuy sanctionné mbër. Hmm. noonu la ñuy sanctionné arbitre. arbitre ñu ngi leen di sanctionné fi mu ne. bu baax arbitre bi def affaire boobu keroog ñun daj ko sanctionné xam tax ñuy sanctionné nag. Hmm. temps bi temps bu temps bu ëpp bi. Hmm. ndax affaire bi dafa am temps réglementaire bi mooy da ngeen di bëre cinq minutes. ka kenn daanu ñu may leen pause une minute. ngeen bëriwaat beneen cinq minutes. bu kenn daanu ñu may leen prolongation trois minutes. mais si diggante boobu. niil warul am. li règlement wax nul warul am ndax si diggante foog mu am ku ñu jox avertissement. mais keroog ak fi làmb ji tolloon est-ce que jëloon risque ni diw génne nañ ko par avertissement loolu bu ko defoon làmb ji du toj. déedéet. Hmm. déedéet c'est-à-dire booy joxe avertissement day nekk mbër mi nga xam ne nanguwul bëre du mbër dañ ko yóbbu si saaku yar ñu soog a soog a joxe avertissement mbër mun na taxaw si digg géew gi tere boppam bañ a bëre. Hmm. ñu jox ko avertissement. Hmm. foofu avertissement waroon na fa am. donc arbitre bi erreur boobu la def ndax tey temps bi dafa dem ba jeex te joxul te ñoom ñoom ñaar ku ne mu jox la ñaari avertissement. Mhm. foofu la erreur bi nekk. Mhm. léegi nag bi temps bi demee ba jeex gars yi bugg a régler problème bi. Mhm. gars yi bugg a régler problème bi. arbitre yi si boppam table technique ñoo jël sifflet bi jox ko beneen arbitre. pour régler problème bi. arbitre boobu ñëwaat arbitre trois minutes. si biir trois minutes yi ñoom ñaar yëpp def nañu action. amul ku muy jox kii. Mhm. mais premier arbitre bi moo def erreur bi yëpp. moom moo defoon erreur bi. mais li indi ba erreur boobu yëpp am. Mhm. moom wax na ko nit kese la. Mhm. nee na dafa maam bi bi bi lam bi tasee noonu. maam bi fiil bi daggee. ba kat yi kii ak ak woykat yi dem. Euh, nit ñi dañoo ñëw jege saako yi. imagine ngay arbitre nit ñi di la saaga partout. waaw jege nañ la jege boo xam ne. moom si boppam sentir na ne nekkatul en sécurité. nekkatul sécurité. Mm-hmm. loolu tam bokk na si li ko xaw a perturbé. Mm-hmm. ndax nit kese la. Mm-hmm. wax loolu yëpp expliqué na ko. mais terewul li mu expliqué loolu yëpp ñun jël nañ décision pour aj ko trois mois. yéen bi ñu waxtaanee ñun. ñun bi ñu waxtaanee ndax dafa am benn commission boo xam ne mooy commission discipline. commission boobu euh, commission boobu bu nit dafay fot ñun dañuy dem toog waxtaan wax yan décision la ñuy jël si kooka. ndax du dafa bokk si ñun rek mbala ñun dañ ko fayal formation ba mu nekk arbitre. que dafa war a def lu ko neex déedéet. Mm. bu juumee dañ koy dañ koy teg daan comme mbër mi niñ ko tege daan. Mm. niñ ko wax a tegee daan. daa voilà mais ñu bëri dañuy critiquer CNG bu al Fadiouth ndax ñaari làmb yàqu nañ fi ah. je crois làmb Mbagnick yàqu na fi. làmb ji yàqu na fi donc loolu yéen lan moo si nekk seen taxawaay jàpp. Euh, xam nga tey comme li may wax toujours. Hmm. bu ñu jël rek concentré wu si làmb Joal Fadiouth. Hmm. ne làmb yàqu na. Hmm. xam nga ñaata làmb ñooy yàqu par at. Hmm. kenn xamul nu mu toll. Hmm. damay joxe benn exemple toujours dama koy wax. Hmm. am na benn làmb boo xam ne làmb bu mag bu amoon ngéeñan du duma tudd làmb kan la. làmb bu mag. mais mënoon ko tudd rek. gendarme yi ne fa. am ma gaay foofu. mais keroog ba làmb yi toj. pourtant bi làmb yi toj am na amoon na sécurité. sécurité bu mot sëkk sëkk sëkk. tey ma jox la beneen exemple. arène nationale bi nga xam ne tey mooy arène nationale laa la wax. combat combat fi fi fa xam ne fa làmb nekk. combat booy Niang ak euh, Jos. Mm. bi combat boobu di yàqu. te ñooñu fekk promoteur investir la ay millions. Mm. combat boobu bi mu yàqoo ba ñu aj Boy Niang ba gars yi defaat médiation pour ñu wàññi aj beeg yooyu. Mm. fu ñu mujjee def Boy Niang ambassadeur de la paix fa lañ mujjee. kon lamb yàgg na yàqu. lamb yàgg nay toj. mais beaucoup on bëgguma concentré aussi Joal ndax benn lamb wala ñaari lamb ya xam nga Joal ñun fiñu ñu lamb. de mhm. ko jëlee dafa sori. dañ ko fekk mu dañ ko fekk dara fi dañ ko fekk lamb bi nga la ñu jël ko ko bi ba mais le fait que nit ñi di tudd lamb Joal loolu day wone lu fi nekk. Mm. nous ko au niveau du CNG. lamb Joal nan moo fa xew war nañ def nii waa cr waa waa CRG di woote waa CDG di woote fu ne fu ne di woote. Hmm, kon kon am na am na lu tax. waaw tax bi loolu dellu si. kon mu ngi dellu si. Hmm. dama koy wax daaw. Hmm. Joal yaa ngi fi. yow yow yaa ngi si yaa ngi si milieu bi. bien sûr dara ñun ñu ngi jël lamb gi saison deux mille vingt trois. deux deux mille vingt deux deux mille vingt trois. muy daaw. lañ jël saison. avant daaw dañ doon toog. kenn waxatuñu woon waxu lamb joal. bu disparaître carrément. amee benn wala ñaar kenn du ko tudd sax. Mm. ñu ñëw relever jël mbapat yi kese kese kese indi nañ fi cinq mbapat. Mm. lamb yi nga xam ne comme làmb yi mag mooy mbapat yu ndaw yi quoi. Mm. lamb yi mag indi nañ fi neuf lamb. daaw yoo xam ne daaw. yoo xam ne gars yi dañ demoon benn joalaaye muy làmb yu tegloo. nduba quatre millions yu yu yu amoon stade trois millions am stade lamb yi tegloo. mu doonaat benn affaire boo xam ne. mu bu ñu jël benn faute bu ndaw xool li nga xam ne def nañ ko lépp mu positif ak a bëri mm. lañ def mu positif mm. tey comme dama koy wax ñun ñoo fi toog ba làmb tëj ñu toog ñu waxtaan def bilan mm. wax ne ñaar dërëm bi fii la tugg dërëm bi fii la tugg dërëm bi tese nañu lii loolu kañ la fi gëj a am est-ce que mos na am est-ce que mos na am bu dee mos na am kañ la fi gëj a kon ñooñu ñu ngi si benn yoon boo xam ne nit ñi dañu leen war a soutenir pour ñu jëmal loola kon bu ñu gis benn làmb yàq wala ñaar ñu bugg a saltel lu baax li fi li ci def yëpp. kon làmb bi encore une fois comité bi ñëw dañ fañ dañu dundal dañu dundalaat làmb. mais di nga ma nangul leen daaw moo dàq ren. moo dàq xagum moo daax ren. moo dàq xagum mais la moo waral lool. daaw la làmb yi gën a bëri daaw la làmb gën a jax lan moo waral lool. mais ren demaguñu fenn jiili demaguñu fenn. yaa nga fi mu ne nii ñu ngi ñu ngi ñaari làmb fi amagum ñu ngi waaj dugg si koor ñi peut-être après koor ñi. am nañ si yaakaar lu bëree baree bari hmm. daaw dëgg la daaw moo ëpp agum laa ndax mais saison bi tëjagul. daaw dat yi bëri woon na. dat yi bëri woon na mais saison bi tëjagul. Hmm, hmm. saison bi tëjagul. waa de am nañ si kon daal mën nañoo xalaat ay làmb ci kanam. bu baax bu baax a baax a baax. ñu bëri dañ doon wax ni CNG bu Joal xaw ma euh, reconnaître ñu woon wala xamuñu leen woon ci bi ñuy liggéey liggéey bu rafet njuum te am tey foo dégg ñuy wax CNG bu Joal loolu ban ban ban tontu nga ci. waaw loolu bu njëkk ba woon. avant inspecteur di ñëw bay installé tey maanaam comité bi fi ne bi nga xam ne tey man maa ko jiite man maay le président mm. euh, avant ñu siy jot maanaam mun naa ne bon xeex la woon mais du xeexu Cour Peine xeex la woon pour ñu jot ko la taxoon ñuy xeex pour jot ko it pour defar ko. Mm. moo indi lii. Mm. moo indi ñëpp dem ba di ko tudd. kenn tuddatu ko woon. kenn tuddatu ko woon. Euh, comme ni ma la ko waxee. ñun yàgg nañ koy xiccu benn ñoo fi ne mais terewul woon ki nga xam ne moo ñu waxoon installé pour ñu officiel. Mm. dafa desoon. kooku nag bi ñu ñëwee ba installé ko ba mu officiel. moom laa la wax suñu première saison mooy saison deux mille vingt deux deux mille vingt trois. Mm-hmm. waaw noonu lay demee. ngi si saison deux mille vingt trois deux mille vingt quatre. Mm. mooy suñ deuxième saison. Mm-hmm. voilà. mel na ni gars yi tëgg làmbu espace jafe na leen saa saa ñu ni collège ba dernier moment ñu ni stade boobaak léegi arène bi ubbeegul. xam nga xam nga ji li yaa ngi wax léegi ne làmb yi ni mu meloon daaw. noonu ko ren xam nga def naa fi ma maa yow waxtaan. interview si interview. Mm-hmm. loolu ñëpp dégg nañ ko. Mm-hmm. moo tax des fois du bëgg a revenir si yan yi mais tey li gën a tardel li tax ñun bi saison bi ubbee tax man li ma contacté si ay promoteur am pagaay xam mm-hmm. xamoon mu tool wax naa ko si si si interview donc loolu bokk na si li nga xam ne tey moo ñu tardel ba làmb yi bëriwuñ fi ndax dèjà ñun tey stade moom comme ni ñu ko waxee gis nga Ousmane Diallo bii paa dafa forcé pour tege stade. ndax collège la jëloon bi mu jëlee collège ba lamb ji war a jot frère bi fa ne ne ko ah dama fàtte woon ne date bi day tombe ak suñu weeru koor. te suñu weeru koor bu jotee mu ne ñoom weeru seen weeru koor bu jotee maanaam ñu buñ fa joxe pour ñu fay def ay yenn fu mbaay yi arrêté seen te waaw loolu ñoom am nañ si droit. comprendre c'est la Ousmane Diallo mujjee dafa stade ndax boobu comme ni mu ko waxee. li mu fere si lamb ji bëri na. kon ni fallait que mu dem defal ji ko stade gis nga stade ni mu méttee organisation gis nga ko ni mu méttee gis nga sécurité même boo indee ay gendarme yu bëri wala ay policier noonu la méttee dafa ndax dafa am miir bi dafa yaatu ginnaaw barrière yi biir enceinte bi collège ke stade moo naxari organisé foofu ñuy interpellé waat Euh, madame le maire ma koy nuyuwaat de passage. ma koy nuyu de passage. mooy borom dëkk bi comme ni ñu koy waxee. munoo wax dara ba jékki ko. Mm-hmm. ndax tamit ak lu mënti xewit mooy borom dëkk bi. Mm-hmm. Euh, demoon nañ fa toog waxtaan. gis nañ tam waxtaan bi am na tuuti njëriñ ndax. Mm-hmm. Euh, tàmbali woon nañ affaire mais liñ koy ñaan mooy ñu accéléré. commencé woon na gis naa fa travaux yi waat mais liñ koy ñaan mooy mu accéléré ndax comme na ma ko waxoon rek. lamb day dundal. lamb day dundal. te commune bi communal. commune bi tey lu si baax. moom avantage am la. bu gënee xumb avantage am la dem faajaar. dem faay waa xawaal yëpp ñu ngi faajaar. ñëpp ñu ngi toog fii di seetaan direct man man mii maa won faaja mhm. ba parce que bi ñuy waaja dem filaal si laa ñibbi si. Mhm. gis fa waa Joal am pagaay presque ñoo fa fees. Mhm. donc yooyu da maanaam comme li may rek facteur de développement la. lamb bu amee gis nga Ousmane Diallo keroog bi mu tëggee lambam bi gis nga ni ni ni ni nit ñi ñëwee mhm. ni nit ñi ñëwee macha allah mhm. du borom lamb yi kesey jëriñu ñii jëriñu affaire bee yaa TV TV ñëpp moom wax nañ ko waxaat ko répété ko mhm. kon ñuy ñaanaat encore une fois tey municipalité bi nga xam ne tey madame le maire moo ko jiite ñuy ñaanaat surtout arène moo indi blocage yu làmb ji ren ndax normalement tey bu ñu ne woon arène ubbi na soo moytul dinañ njëkkante date yi lii moo indi blocage d' accord loolu loolu leer na xam naa fi ñuy mujjee jeexalee rek mooy mbër mi nga xam ni moo defoon loolu ndax da ngeen ko mujjee sanctionné ginnaaw wax ngeen ni arbitre bi sanctionné nañ ko mbër mi moom ëllëgam lan la dañ koo aj wala lan lañ ko def. xam nga jili dañuy wax CNG wax CRG wax CDG. ah bon maanaam ay ay maanaam defa ay loo gis rek nit koo gis rek dafa am kilifa. Mhm. ñun dañu am kilifa muy département de Mbour. qui département de am ay kilifa moy région de Thiès. Hmm. région de Thiès dañu am ay kilifa moy au niveau national. Hmm. donc ñun ñi nga xam suñu localité la xewé hmm. dañ ci am part de responsabilité bu mag. ñun biñu ñu ñun mbër mi dañ ko tek sanction bu 10 yoo xam ne du ko wax fii ndax comme dossier bi. ñu ngi si yoon ñu koy traité. du yoon ma koy génn fii. dëgg la mais li wax moy ñun tek nañ ko sanction bu 10 bo xam tay euh tay manam mbër mi warul yombe noonu si mom xam nga lu tax. mbër mi dégâts yi mu def si biir làmb bi dafa bëri. Mhm. ay dégâts yi dégâts yi dégâts. ba ay nit blessé si ba làmb ji yàqu maanaam coow li am yëpp. mbër mhm. booy boobu moo ko indi. Mhm. booy boobu ñuy wax xaw ma xama si nga xaw ma. booy boobu moo indi lépp. li am si làmb ji yëpp booy boobu moo ko indi. donc tey mënul indi loolu yëpp. bëgg ñu jël affaire bi oyofal ko mbaa ñu jël affaire bi mu yomb noonu si moom déedéet déedéet. xam nga bëre la yaakaar. tey CNG dafa am police boppam. CNG dafa am police su boppam. Hmm. li tax may la dafa am police su boppam xam nga ñun tey bu fekkoon ne tey am nañ droit jóg def porter plainte. Hmm. wala leneen. Hmm. peut-être yoon yooyu yëpp noon nañ ko jël ndax booy bi dégâts yi mu def dafa bëri. mais nag CNG dafa nekk loo xam ne bu mbër mi defee dégâts dafa am suñ ko war a attee. ñun déjà comité locale bi ñun dañu am suñu dañu am ñoo xam ne tey ñun ñoo war a toog siège atte. li ñu war a atte ñun ñu ne lii ñu def ko si suñu rapport ñu ne lii la ñu bëgg ñun. ñu yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu ñoo ñu yóbbu ko ba fa muy egg fañ ko war a egg ñoo ñu toog chaise par rapport ak li ñu wax par rapport ak ñun ñi nga xam ne tey ñoo nekk si localité bi li ñu wax ñoom ñu xool naka la ñuy def pour daan pour teg booy bi ay daan. macha allah mais booy bi moom par A ou B dañ koy teg ay daan. ay daan kooku moom c'est automatique. jërëjëf day am euh, euh, jàpp ndax mun nga ñu fàttali quelque loo xamante ni règlement la rek ci làmb ndax mbër yi lay seetaan ndax keroog gis naa koo xam ne dafa mel ni ngeen bëri daa ñu joxe victoire lo règlement pes la wala man ma comprendre man bi seetaan lam wala légui boy ngeemu sa ngeem warul tas manam benn ngeem bi da tassé ci biir géew gi wa dañ ko wër ndombo wa ma gis boy bi japp waaw ba mu yag ngeemu li xaw tas bi daw bàyyi ko fa ñu ni ngeemu li tas la ta man sa ba gis nit ku bam das mu rofat lan nga ñu mën wax ci est ce que xam nga dafa am dafa am combat xam nga yow mun nga gis loolu fekk ne arbitre bi moment bi mu bi bi muy baare booy bi fekk temps bi mooy jeex. ah d'accord d'accord fekk a combat day am. fii li ñuy jox ñu jox la ma comme maag yow ñu jox la avertissement te ñiy seetaan am na ñoo xam bàyyi si ànd si compte. d'accord d'accord te fekk am nga benn avertissement. léegi si biir fi nga amee avertissement lamb ji temps mhm. temps bi nga xam ne tey bu jotee automatiquement am dañ koy arrêté combat bi mhm. ak su combat bi munti toll mhm. heure joxe jeex na dañuy arrêté combat heure bi ñu joxe nag bu fekkee mu jeex fekk yow yaa ngi woon ak benn avertissement kee la ñuy jox sama réalisateur dina ko génne mooy combat njool bu sana bi muy wëree booy bi ndombo dama jékki rek mu gis ba ma gis mu bàyyi booy bi daw kon noonu la demee donc jàpp euh, ban message nag ngay lancé ci lambu Joal Fadiouth Euh, xam naa ni dinaa la laaj tuuti ci waa ànd liggéey Joal Fadiouth foo for nañ ci weewu béy nii te yow yaay vice président bi ñu ni yéen a ngi waajal làmb ndax loolu am na wala ñu ngi waajal làmb. <laughs> waajalaat. ñu ngi waajalaat <laughs> ah, loolu man xam nga mënaguma si wax lu bari ndax xam nga li tax. <laughs> Uh-huh. Euh, ñun dañ ne woon dañuy bàyyi ba comme day dugg nañ si koor. waaye. tey chrétiens yi ñu ngi woor. ñun musulman yi ñu ngi woor si. te xam nga weeru koor. ak lu nit bëgg-bëgg mbumbaay wala kii foog ñu def tuuti baay baa suukar yi dina ñëw suukaru. suukaru koor yi mouvement. loolu dina ñëw <laughs> incha allah si kattanu yàlla. Uh-huh. mouvement bi dina comme ni mu koy. defee ne ay suukaru koor. <laughs> mouvement bi moom si ay action la dëkk. Mm-hmm. mouvement bi comme ñu koy waxee. bu mm-hmm. buñ defee action bi ñu fa jógee si action bee lañ jëm. Mm-hmm. ndax comme li ñu waxoon départ ba. fa lañ teg suñu tànk te fa la ñuy teg suñu tànk benn. incha allah ndax ñun képp ku ñu xam xam ne développement rek moo ñu ñor. kon tey mouvement boobu li tax mu sosu. Euh, développement tey si président bi nga xam ne moo ko jiite muy la président Etienne Dimle Ndong ma koy nuyu de passage di ko di ko siyaar euh, tey man lu tax toujours des fois damay wax si moom mm-hmm. damay ne jiili ku ma xam-xam ne du ma tagg nit mm-hmm. ñi ma xam dëgg mm-hmm. du ma tagg nit xaaruma dara si nit sam bopp laa gëm mais nag dinaa gis nit def lu baax ma wax si te ki nga xam ne yàlla defal na ko xéewal mu jox alalam munoon dem tabax kër sanañ tabax ko feneen bala dem vacances Canada wala dem fu ko neex mu ar bàyyi loolu yëpp ñëw ne suma alal bi dama koy jël di ko investir si biir dëkk bi mm-hmm. kon kooku tam ñun fu ñu toll war nañ koy sari a gërëm sant ko pare di ko accompagner si mm-hmm. loola ndax loolu muy def euh, dëkk bi la koy defal mm-hmm. kon loolu man à chaque fois fu ma fu ma toog man damay saluer te di ko accompagner si loolu. Mm-hmm. te di woo gars yu bëri ñu yow accompagner ñu si loolu. d'accord ndax ñu defar kaay ñu liggéey. Mm-hmm. bañ na ko ba turu mouvement bi rek dafa wane boppam ànd liggéey. liggéey incha allah te fa lañ nekk. loolu rafet na mais yéen a ngi waajalaat lamb wala. incha allah lamb moom ji yow ji de xam na ne ñun. Mm-hmm. ñun moom làmb dañ ko bëgg a bëgg. lamb si la ñuy dund. lamb suñu suñu kii la suñu suñu suñu nattu la. làmb suñ nattu la. Hmm. man wax naa la man deux mille deux mille sept. laa njëkk am licence promoteur. deux mille laa njëkk a am licence promoteur. te at yi may toog te du ma tëgg làmb bëriwul. kon ñu bëri sax si làmb lañ ma gën a xame kon tey munu ma lu di dund làmb lool. tey même bu dul mouvement bi man ñu ngi ay yeneen idées yoo xam ne naka la ñuy def ba làmb am si commune Joal Fadiouth mais encore une fois. ndax làmb dafa métti. Hmm. tëgg bi dafa métti organiser bi dafa métti kon encore une fois ñuy ñaanaat madame le maire mm, suñu arène bi moo indi suñu blocage bi blocage bu làmb Joal Fadiouth arène bi moo indi blocage mm. kon ñuy ñaanaat pour nu ñu mun a def nu ñu mun a gaawee ñu ubbil ñu arène bi mm. ñu dem fa tëgg fa laam su ko defee ñeneen ak ñeneen ñëw tëkk bi amaat beneen xat kanam dëkk bi changé ndax damay wax ne jiile c'est gars yi bu ñu xamoon ni di dëkk di dundale làmb damay jël exemple film laa gis nga film laa ñu amee bari làmb taay foo tool day xumb kat yi ñëpp ngi jaay. ñëpp naan film seen action mu ngi dox. ndax le fait que sa dëkk am làmb rek. station yeeg restaurant yeeg gis nga bu làmb tasee. Ah da ngay bugg am loo lekk doo ko am. doo boo yéexee ñëpp ñu jënd la. Mm-hmm. même borom auberge yi borom hôtel yi. Mm-hmm. ñëpp ay liggéey borom kalandoo yi nag ñoom ñooy gën a yàkkamti làmb am. bien sûr kon làmb daal ñëpp a say jëriñ kon ñuy ñaanaat. Mm. ñu dimbale ñu suñu arène bi. Mm. di woo yeneen promoteurs yi tamit. ñu ñëw lambu Joal Fadiouth tey la gën a dox te nag diir ma mhm. pour dalal xelu nit ñi. Mhm. am nañ yaakaar action yu sew yi am nii. Mhm. mun nañ am nañ si yaakaar ndax ñu ngi siy jël ay pexe. te dinañ si jël yeneen matuwaay yu gën a sévère. mu soobee yàlla ba xam ne ku ñëw tëgg si fi làmb rek di nga nekk en sécurité. d'accord incha allah ñu ngi siy waxtaan. te am na ay kilifa yu siy waxtaanal. yoo xam ne daal pour problème sécurité bi gën a yokku daal. nga xam ne laamu Joal moom. incha allah kuy tëgg sa xel mun na. ñu ngi si wut ay pexe. ay ñu ngi si wut ay pexe. bëgguñu wax lépp ndax tey am na koo xam ne tey moo yor sécurité bi nekk fii tey au niveau local. muy le commandant ñu koy saluer de passage. mais tamit dinañ am ut yeneen pexe xam nga tey mënuñu def dara ba jekki ko. munuñ def dara ba jéggi lépp si ay kàddu ko waxtaan la mhm. mais daa en tout cas si kàttanu yàlla ñun dinañ fexe ba ku fiy tëggati làmb daa sécurité bi gën a yomb malgré sécurité mu ngi am nag làmb waat bi noonu mhm. mais dinañ fexe ba sécurité bi gën a yomb si kàttanu yàlla jërëjëf jàpp euh, mu nekkoon seen émission Kër Champion jàpp dama lay bàyyi nga tàggoo nga tàggoo ak askanu Joal waaw di di di nuyu Joal Fadiouth yëpp mhm. euh, Sénégal mais Joal bi nga xam ne fii laa dëkk ñuy nuyuwaat ñëpp di jaajëfal ñëpp te comme niñ koy waxee rek baal nañu àq ñëpp. Mhm. di baalu àq ñëpp nag ndax milieu lam mooy loo xam ne bu nit ñi dajee. Mhm. bu woykat bu woyee bu deret yi tàngee ñenn ñi dañuy soppeeku. Mhm. làmb moo demee noonu. démb faajaal. xaw ma yéen a nga fa woon fa làmb ji yëpp xeex la. Hmm? maa nga fa woon. làmb ji yëpp ay xeex la. dem nañ def benn instant gars yi foog ne làmb bi dina toj. Oh. boobu ndey faatu mu ngi woy xale làmb ji jaxasoo. gisuma fa sa homme de tenue. li nga xam ne li li tax man dama foog ne tey ñun li nga xam ne mooy Joal ak suñu commune Joal ak Ngéeñan mm. suñu maire yi war nañ ñu dimbalewaat. Mm. waxtaan ak suñu ak suñu ak suñu commandant yi. Mm-hmm. ndax problème sécurité. ndax xaw ma nu mu demee mais gisuma fa om benn homme de tenue gisuma ko fa. Mm. te loolu c'est très dangereux. làmb di tëgg ba mun a jeex benn benn gendarme newu fa. loolu loolu lu doy waar. loolu lu garaaw la. demb nee naa la làmb ji yëpp xeex la. boo laajtee ñeneen ñi seetaan woon dinañ la ko wax donc loolu euh, ñuy ñaan autorité yi ñu gën si ñu gën si ñu gën si veiller. Mm-hmm. ñu gën si bàyyi xel. Mm-hmm. ndax fu sécurité new fu gendarme new xam nga tey bu dee yeneen sécurité yi nga xam ne tey du ñu ay gendarme. Euh, nit ñi ni ñu gën ni ñu ragale gendarme wala policier. Mm-hmm. ragal ragaluñ ko yeneen agent de sécurité yi. donc foofu ñuy ñaanaat suñu autorité yi. ñu gën ñu dimbale si côté boobu ndax tey euh, ñoom njaboot bi seen njaboot. tey bu fi musiba amee fii. ñoom duñ si set. dëgg la. njaboot bi seen njaboot. Mhm. kon nañ ñu gën a dimbale gën a xool naka la ñuy defaat si sécurité bi. macha allah voilà di nuyuwaat ñëpp. Mhm. Euh, jili di jaajëfal ñëpp. Mhm. Euh, di wax gars yi ne daal comme ni ñu ko waxee baal na ñëpp ak di ñaan promoteurs yi nag. nañu ñëw fii dëkku làmb la. dëkku cosaan la dëkku làmb la lu fi waaye laal si làmb mu neex. kon na promoteurs yi ñëw te xam ne fii dëkku làmb la. amul benn problème loolu ak làmb ñooy ànd. di jéggalu tamit euh, di wax ne. xam nga wax dafa garaaw. Mm-hmm. wax neexul te wax boo xasee génne balu fetal la. Mm-hmm. te mën naa foog ne man li ma wax fii yëpp jaar na yoon. non léegi moom da ngay ñaan. fekk ne mën na am. bu njëkk da nga doon wax nañ ñu defaral mais léegi da ngay ñaan. da ngaa jënd glace. damay waaw léegi damay jënd glace <laughs> bu njëkk waa xam nga ji li xam àdduna moom lu ne gën a dem rek. Mm-hmm. Euh, gën a expérience yi di gën a ñëw. booy gën a tamit di gën a am xelu mag. Mm-hmm. waa ndax àdduna tam amul solo. Mm-hmm. dëgg la nag ñun nag duñu duñu may kenn boo xam ne dangay ñëw toog suñu kaw bopp yi noonu. Mm-hmm. loolu moom duñ ko may benn doomi aadama. loolu moom ba tey jii ku bëggoon ñëw toog suma kaw bopp ma bañ ba wëndeelu. dëgg la mais nag terewul am na yoo xam ne fi ma toll nii. dinaa jëlale dinaa dinaa dinaa jégale dinaa jëlale xam nga lu tax. Hmm. bu ñu demee ba jox la poste responsabilité. lu toll ni président. comité de lutte Joal Fadiouth nga xam ne Sénégal mënoo wax làmb. waxo waxoo Joal Fadiouth ñu jox ma responsabilité bu tool noonu jox ma le président ma yenu hmm. kon ji li man foog may jégale di jëlale. ak làmb ak coowam. waaw làmb ak coowam moo tax ah. léegi damay léegi damay muñ. Hmm. loo xam ne daaw ma ko muñ léegi dama koy muñ. macha allah waaw léegi àdduna moo demee noonu. Aïcha kon nag na gars yi gën a yokk poste de responsabilité yi ndax Diab ko ko xam-xam ko ci tàngoor mu nekkoon seen émission Kër Champion ñu ci doon dalal Diab Senghor moom nag euh, mbiram lu yaatu la ci commune Joal Fadiouth ñu koy jaajëfal xam naa ne di ngeen ñu gisaat ak moom ci yeneen i façon si yeneen interview kon nag gars yi wéy leen di abonné chaîne bi chaîne d'actualité la.